déjà ndax live bi gars yi ñu ngi koy gis c'est parfait ku dugg partager sama gars yi leen ziar bu baax a baax ci dimanche bi heure bu baax bi bés bu baax bi jour bu baax bi jot na leen ziar bu baax a baax ku dugg partager ku dugg partager ku dugg partager

Donc voilà, Mané m'a envoyé des vidéos aussi. Voilà. donc amnebo na boo avant moi jot monsieur sec donc war dougal vidéo voilà alors un petit moment il y a aussi un sondage on m'a parlé d'un sondage monsieur Sec il est devant les autres candidats aussi que me double ko voilà il est c'est là on va en parler voilà alors lépp nee na mojji lépp nee na mojji sama gars yi maa ngi leen di ziar ah, euh, ambassadeur euh, Oumar Wade Kër Ndiaye loo nekk aussi waa réew mi et dur hein. c'est je pense bien Manque nous koy a déjà Hadija Dieng Hatija Hatijani maa euh, Maroudia Diallo Mangle Nui lay maman maman Nafisatou Diallo ça tout lay les activistes républicains Ningti, Ningti, ci live bi macha hein. euh, vraiment ça me fait très très très très plaisir Adiza Maki mettez des cœurs lille euh, gis nañ euh, Benno Bokk Dingen am ak candidat mais quand même vous êtes là hein parce que nous, ñu pas adversité mais dans le respect lolou lu ñuy saluer la té ñun lolou ñu mësa a xam Sénégal kon ma ngi koy rafetlu di nuyu donc tous les activistes républicains di ci euh, jiital ñom Anita Diop ak tamit euh, euh, ni voilà donc baax aussi ak ñom Bajaxate suñu frère ah ñëpp ñu ngi fi Nana Cissé Magita voilà femme force ñu ngi fi Traoré Amadou ma ngi lay jël bu ci kanamee dinañ la wax waxtaan bi tay nu muy nu muy donc mo fi nar taxawal tay réew mi diaspora fi ci diaspora bi inshallah Rabi dina jël également sama ben confrère di sama xarit euh, El Modou Gueye ñu nek nekk euh, dina bugg également ci waxtan bi la Badji aussi nek réew bu maga maga en force donc maa ngi leen di ziar Adiza Maki Aminata Diop Alassane bengi ñep awma sen euh, toute la clique est là kon nak gaay yi la bi di sans perdre de temps parce qu'à 17h20 minutes 15h20 minutes heure de Dakar heure du Sénégal donc dinañu euh, nous donc Dougal suñu invité donc il nous a fait l'honneur aujourd'hui Dougou ci live nous xam depuis 2019 euh, voilà tous les teneurs, donc la crème de la politique sénégalaise dañuy Dougou ci live euh, surtout avec élection présidentielle de 2019 voilà donc côté même ñi may xalab tey Ousmane Sonko na live Alassane Sall euh, voilà tous les grands politiciens de ce pays nous leen nous ñu ci euh, euh, remercier bu baax a baax a baax kon na gars yi tey baax yaay mang leen nuyu Babacar Mar egsi l'équipe digitale du rewmi donc de rewmi mi Babacar mang leen nuyu bu baax a baax maa aussi mi ngi ci live bi mom moy le chargé de communication du parti rewmi mang leen nuyu bu baax a baax alors donc gay yi on va revenir rapidement sur euh, ce qui a fait l'actualité semaine bini. Euh, ce euh, qu'on fait fait à 15h20 17h20 heure de Paris 15h20 heure de Dakar ma donc euh, le chef de l'opposition l'ancien premier ministre qu'un directeur de cabinet pour l'ancien président du Sénégal dit Abdoulaye Wade ci donc élection présidentielle su ma 2007 su mois hein. voilà donc oui le président Idrissa Seck voilà donc tey une demi-heure les donne 30 minutes parce que c'est réseaux sociaux social les ñu euh, mu gatt saf am solo ah euh, waxtan bu am solo lay doon incha bu ci campagne bi nak incha nous ni ñu koy ak euh, président Idrissa Seck bu réew leader de réunis nous lañ fait koy également avec tous les autres candidats lool moy suñu yéné donc ci campagne présidentielle bi nga xamné mom dupsi donc tay wa réew tay ñom on fera 30 minutes avec monsieur Idrissa Seck balabou bobu ben vidéo bu ma équipe réew envoyé donc mu nek lu am solo parce que il fay dit maanaam symboliser en fait dafay daal di résumer euh, li nga xamné moy taxaway taxawaay ak euh, euh, message bu président Idriss Seck bëgg euh jaklel wa Sénégal ndax loolu mooy doxalindam loolu parcours c'est ça qui qualifie l'homme donc euh, kon nag dinañ une benn vidéo waxtaan ak mom, am question yu ma koy am aussi ay question yoo xamante ne yéen ñi ci y a des internautes yi followers yi di ngeen ko posé question qui euh, dit président Idrissa Seck ma xool sélectionné sélectionner les questions les plus pertinentes alors je vous le dis tout de suite alors live avec des invités c'est hyper important euh, bugguma ben yon ay affaire de ruubeeg ñoom seen parce que ay kilifa donc képp ku fi ruube wala wax bo xamante wax amul bloqué la tesen batelina ba te li nak wa les dimanches dinañu naxante ruube wante ak yu mais c'est très sérieux Kofi fi dugg ci wa Pastef di dugg di ruube wala ay question yu fayda di bloqué yen waker euh, euh, yamadita waker Sonko di artu voilà mu euh, je rectifie euh, donc Mané il est le secrétaire national chargé des relations avec la presse donc Mané euh, kon manque une koy donc vous après donc Yin internet internaute également cette question le président Idrissa Seck ma sélectionné question sont ci peu importance yu pertinente 30 minutes Nous devons 30 minutes à it mom. également un également journaliste bo xam dina décortiquer ak ñun euh, l'interview donc du président Iris Seck muy El Gueye euh, un grand journaliste que je respecte énormément on a travaillé ensemble fële ca Walfadjri ba Walfadjri doon Walfadjri kon nak buñu paré ci nonu di ma leen ko waxé sank ma euh, ki nga xamné mom moy mooy Traoré nekk réew di aussi taxawal parti réew fele ci Maroc di représenter tay la diaspora également di la duggu waxtaan donc mu nek 30 minutes et lu ci dess nak voilà mu nek des ñuy décortiquer euh, wi donc gars bala balaa may dugal sama invité ni ma leen ko euh gis ngeen ne dembe démb rek moom gëna récent dem lañ ci page Anita Diop di ngeen ko fi gis euh, donc le rendez-vous bi nga euh euh l'opposition radicale qui euh, ko symbolise di Ousmane Sonko woote gatsa Gatsa mu mujjé ci nañu indi jàmm bizarrement léegi après le gatsa gatsa léegi da fay wote na jamm i tient beaucoup à la paix alors que moom moo doon woote génn leen xeex génn leen joxe sen bakkan joxe leen bii démb nag dafa wote euh, concert casserole nee reculer pour mieux sauter euh, concert casserole bi loupé national

donc loupé national donc gars yi euh, euh, bu loolu weesoo aussi gis ngeen ne mm, jamono ji défon nañ ne vendredi euh, wala samedi au plus tard que dinañu xam kan moy doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar parti donc APR waaye dafa mel ni on joue les prolongations donc gars yi nee na bu président Macky Sall ñibbisee voyage am bi mom lay doon voilà donc ku nek ngi wax nak diw lay doon diw lay dem diw lay doon mais gis ngeen ne ginnaw mom ba ñëpp défé né moom président Macky Sall fay da fay bok ci élection euh, donc euh, yi di jow 2024 samp ndëndam pour troisième candidature fa njuuy ñëpp kon nak man wax nañ ma ay tour ne ma bul wax waaye nak ces dernières heures là amna yu bari yu xew donc man daal li ma xam moy gaay nañu tok déglu président Macky Sall lu a il s'est verrouillé il nous l'a montré Diamono, euh, euh, euh, après tabaski bi nous ko na ñëpp bu droite lay jaar mu gauche kon na ñëpp ñëpp xaar depuis ces dernières heures ma wax

Euh, présidence parti bi nga ne bi nek euh, euh, voilà APR Benno Bokk la coalition nañu wax lolou mu wax fan lako fan lako tek gaay bala may il nous reste six minutes bala may duggal suñu suñu invité Idi au palais mi ngi à fond voilà Sonko Ousmane Sonko il lu ne def euh, ils font ils sont ils sont euh, dans le populisme euh, parce que gis ngeen demb on est journaliste yi leen di nan lay def ak blocage dugg un million de personnes un million de personnes mënu ñu dem barrage ndax mom Ousmane Sonko buntu këram dem jënd ji ni xalé di dem ca kiosque ba jënd mburu wala pain ndambe sax donc tay ji bo un million de personnes pour sa investiture un million de personnes yoyu nañu dem yëkëti barrière ndax sonu na lool waxtan na ak yeen nak yeen yeen patriotes yeen ko de Ousmane Sonko sonu na de barrière sonal nako dom ja dom ja amul baccalauréat ndax barrière ya sonu na lool nit la

bàyyi leen caaxaan beeg enfantillage bi du ma yàgg nag ci yéen ndax tey bés bi du pour yéen. voilà bu ñu ñëwee nag mu ne moom doomam moom Ousmane Sonko dafa dafa amul baccalauréat bu leen fàtte fee ci Ziguinchor ay xale ñoo ko doon garder ñenn ñi dañoo doon fay par jour waaye am na yoo xam ne eh, eh, ñu ngi nekkoon école ñooñu amuñu amuñu bac ndax jànguñu am na xale yoo xam ne dañ doon dem côté Sédhiou ak yeneen ci ci ci ci dans le sud di génne ji xale yi xale yooyu jàng xale yooyu jàngewuñu amuñu bac kon y a ton fils ñu yem foofu gars moi, mu am lu ndaw lu ma bëgg euh, euh, def ko ben parenthèse bu ndaw parce que c'est hyper important par rapport à l'APR par rapport aux activistes républicains que je respecte bala ñu jël suñu invité Ça gars j'avais fait une publication publication bobu ma def nak ku ci tuddu wa réew mi ndax amna ñu défé né publication bobu ma def c'est parce que dama wara jël tay le président Idrissa Seck motax parce que euh, tay voilà wa réew mi ak invitation tay ji mom motax ku ci tuddu wa réew mi tooñ damay wax te yalla rek ka tax live bi ñu bari ñi nga xamante ni nii lu ñuy gën di rafetlu moom mooy Maty on sent la sincérité on sent la franchise c'est ce que j'ai toujours été man j'ai pas besoin di di di di calculer wala di wala di am ay prétexte pour pour pour pour pour pour a pour mën def ben mbir man lepp lu may def dama koy assumer ba ma waré xeex ak Ousmane Sonko dama jël mbir bu femme de média tek ko de côté wala xeex ak mom assumer ko man duma ma ma ragal lu may def dama koy assumer ku ci dugal wa rew mi togn len len nak je l'ai je l'ai constaté xaw ma nag am naa droit wax ko moy c'est c'est c'est des militants les militants Idrissa Seck respectent énormément yéen militants au président Macky Sall yéen ñi bokk APR ak ñi bokk Benno je vous le dis très sincèrement on n'a jamais mosuma o équipe digitale muy Babacar Mal di Mané ak waa réew mi fu nekk lañ ma woowee ba ñu xamee ne Idrissa Seck moo war a ñëw tey ci live bi fenn fépp lañ ma woowee Kuala Lumpur waa réew mi militant Idrissa Seck fépp ci àdduna bi fu ngeen xalaat woo nañ ma fa. képp ku woo xam nga lu may wax président Idrissa Seck lii mooy parcours lii mooy c'est un homme di ko di ko tagg di ko tagg di ko wax jaar-jaaram ak bëggoon nañ nga poser ko bii question. gisuma dara dara dara dara lo xamanteni ni wax nañ ko sax mu jëm ci euh, euh, euh, président Macky Sall wala APR wala ci benen parti sax wala ci benen parti sax même pour Ousmane Sonko ils sont focus sur le live d'aujourd'hui sur la personne d'Idrissa Seck et je vous le jure ils vous respectent énormément te man dem sank bama bama waré ma dugg ci live bi lolu la xalat parce que Sénégal lolu lañu xam moy ay adversaire ngène mais dans le respect Ousmane Sonko moo fi indi leneen ak jamu àndal kon nag ça n'a rien à voir ak li ma war a jël tey président euh, euh, leaderu réew mi Idrissa Seck dafa nekk loo xamante ne ñu nekk ci biir du ruube ndaxte réseaux sociaux yi nag nañu waxante dëgg activiste républicain yi ñoom Anita Diop ñoom ba Diakhaté ak Maty Trois Pommes boo man duma militante de bokkuma benn parti te duma activiste waaye dañu dama woote ne kuy politique ku dul politique nu ñëpp jóg muy ñoom Babacar Mar chaque jour mu may envoyé message muy waa réew mi waa PDS ñëpp ci Sénégal mooy ñi politikul ñëpp may woo ñuy waxtaan pour le Sénégal bokkat ak man xeex bi nag duma militante fenn duma militante fenn ak ni kenn waaye nag ñun ñoo téye réseaux sociaux yi jamono jii te loolooy dëgg mu am nag ñu nekk di ruube te ñuy ruube ci suuf nekkuñu ci réseaux sociaux yi te ñiy ruube ci suuf xam nañu mati bu baax xamna né ne elle est tenace elle dafa am endurance pas na notre am fit day xeex dem ba jeex les lépp lu leen par rapport au contexte du moment mom moy ñu roubé moy ñu diviser te nekkuñu ci réseaux sociaux yi nak fofu la yem duma dugg ci ay détails c'est pas le moment mais juste pour vous rassurer pour vous rassurer manque combat bi dem ba jeex wax c'est le centième de ce que je dois dire les plus pour diviser avant dama ko doon indi dama ko gis muy ma xool ni ma koy teggee ndànk ndax man may seen mag ñu ci bari ci yéen waaye nag lu ëpp tuuru moo taxoon ma def publication boobu dindi ndax baax yaay ak ci ak colère bi ma am ak ñoom ba jaxate ak ñoom ñoom Anita moo tax ma dindi ko on oublie ñu fàtte ko nag ñi doon ruube bu avez tapé poteau vous n'avez pas réussi perte ngeen tooge leen nee li ngeen bëggoon du mas a am inshallah ma il fallait que je le fasse parce que euh, wax ça n'a rien à voir avec l'invitation euh, euh, d'aujourd'hui du leader de de et que encore une fois les militants du Dissasek, ni ni ils sont très très respectueux et surtout ils vous respectent activité publique parce que c'est des militants très très posés et responsables voilà gars Donc nag loolu la ba après le la djel, inshallah, parce que je dois euh, prendre le président Idrissa Seck comme j'avais dit à à à à 20 ba jaxate maa ngi la nuyu bu baax a la bari pour l'intérêt du Sénégal exactement ndaw réew diaspora loolu la wax voilà man de lii laa ci militant

ça va ça va très très bien di la bàyyi nga nuyoo ak suñu internautes yi nekk Sénégal ak diaspora bi. alhamdulilah asalaamualeykum maa ngi nuyu internautes yi suivre mhm. émission bi yëpp yi mhm. nekk biir Sénégal ak yi nekk ci jaspora bi ku ci nekk ci turam ak santam. Mhm. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal. Euh, di la remercier nag bu baax a baax ci li nga xamante ni donc euh, invitation donc euh, tay bi vraiment di nuyu aussi équipe bi nek ci sa ginnaw yépp bëggoon nak xap voilà donc amna na vidéo boo xamna ne suñu paré interview dinaa ko dugal ndaxte vous tenez beaucoup beaucoup à la paix euh, gis nañ euh, euh, quelques années ci ginnaw donc euh, rejoindre nga le président Macky Sall ak sa parti ngir liguey pour Sénégal bobu ñu en plein Covid nga def ko par rapport à nga da nga bëgg pour le Sénégal nga dégg ci lu né gis ci lu né nga ba je pense que l'histoire vous a donné raison l'histoire vous a donné raison pourquoi monsieur Seck il tient beaucoup à la paix euh, euh, par rapport à la situation, contexte géopolitique actuel, euh, vous êtes un homme d'État, ancien Premier ministre, vous savez l'État, vous savez également la relation du Sénégal avec les réunions parce que le pétrole et le gaz sont fin de réunion. jërëjëf Mati li ñëpp war a xam mhm. mooy jàmm moo jiitu lépp mhm. ku amul jàmm doo mhm. tal leneen Mm-hmm. réew mu amul jàmm mm-hmm. dootal leneen mm-hmm. dootal a liggéey dootal a bay dootal a napp dootal a jàngal say doom dootal a faju benn activité munul am te jàmm jiituwul donc leader politique bu nekk citoyen bu nekk journaliste bu nekk li nga war a njëkk a def mooy liggéey pour jàmm sax ci sa réew Mm-hmm. même ñi nga xam ni ñi dañoo yor seen alal nekk bitim réew. Mm-hmm. di seet fu ñu dugal seen alal pour yokk seen koom mm-hmm. li ñuy njëkk a seet mooy ndax bërëb sàngam bu ma ko fa dugalee du lakk wala mu yàqu donc jàmm lay njëkk a seet ndax am na fa wala amu loolu mooy sababu lépp lu ñuy def ñu jiital ci jàmm dëgg la dëgg la donc deug la mu nek lu am solo euh ñu ñu nak euh, manam ñuy djub sil nak euh, li ñu nane élection présidentielle 2024 euh, gis nañ né ci côté opposition radicale voilà on va dire la coalition yewi Askan Wi qui est maintenant une coquille vide euh, également la société civile de réunir ci F24 également morné parce que nous accentuons sen combat bi ci troisième candidature du président Macky Sall euh, gis nañ euh, également le le le le parti au pouvoir donc APR ñingi le président donc qui a un choix cornélien à faire Madame désigner le candidat de la coalition également du parti mais il ñi a nek sen coin délégué tranquillement té man gis na né yaangi ci xamal nañ ma ni ma yaangi ci de terrain bi waxuloo nag waaye yaa ngi nekk di liggéey à fond té militant yi ku waxal mu ne ma 2024 c'est pour nous euh, euh parti réumi donc les gens pensent que c'est une campagne euh, très incertaine mais yéen li ngeen li ngeen enfin di ngeen gëm 2024 que 2024 c'est une année là fu ngeen ko teg fan ngeen ko teg <laughs> waaw alhamdulilah Mati <laughs> uh-huh. li am solo uh-huh. mooy ñu xam ni Sénégal bari na ay doom yu xareñ yu patriote yu ko bëgg yoo xam ni mm-hmm. courant politique bu nekk boo fa demee di leen fa fekk mm-hmm. li am importance mm-hmm. mooy ñu waxtaane programme yi mm-hmm. waxtaane ku nekk li nga namm ci Sénégal mm-hmm. te loolu kenn rekk ko jara wax mooy citoyen bi yore carte électeur am donc li am importance du nekk euh, tout le temps di wax li am importance mooy dem ci biir nit ñi dem seeti sénégalais yi waxtaan ak ñoom li nga namm ci Sénégal nan ngay def Mm-hmm. ba ndaw ñi am xëy mm-hmm. mën a am koom mm-hmm. bu ñu teddee terale ci seen waajur nan ngay def ba duñu soxla jëggaani koom boobu feneen ba ay tolof tolof di leen ci dal ci géej gi wala désert bi wala ñuy nekk ci ay kaso ci réew yi fexe ba développer sa réew loolu comme mooy li am solo te électeur bi mooy décider moo yore sañ-sañ bi ñun dem waxtaan ak électeur boobu mooy suñu démarche mhm. li ëpp importance loolu la mhm. dama waxoon ni 2012 mooy élection bi gën a bon bi ma def parce que dama concentré woon mhm. di dem place de l' indépendance di xeex troisième mandat troisième candidature mais gis nga ba ma ko defee ñoom Macky Sall Moustapha Niass ak feu Ousmane Tanor Dieng ñi nga xam ni dañ ñu fa bàyyi woon dem wax waxi ji ak nit ñi ci biir réew mi mm-hmm. ñoom la sénégalais yi jox seen suffrage mm-hmm. Mm-hmm. donc képp koo xam ni kii daal bëgg nga nekk candidat ci élection yi man li ma lay diggal di ko diggal sama bopp mooy nga dem wax ak sénégalais yi donc effectivement ci terrain bi la ñu nekk dañu diviser réew mi ñetti pàcc ñetti xaaj benn xaaj bu njëkk bi mooy li li dend géej gi mhm. jóge ndar ba Cap mhm. loolu lañuy ñuy njëkk a def ci lañu nekk di waxtaan ak suñu mbokku baykat yi euh, ak suñu mbokku nappkat yi mhm. mool yi di di seet lan mooy seen problème lan mooy seen xalaat loolu bu ñu ci jógee ñu soog a def la partie dorsale maanaam topp dex gi mhm. euh, dem ba Vélingara donc romb Matam Podor Bakel wàcc noonu après mhm. ñu def di mhm. Kaolack Diourbel Louga et cetera donc li am importance daal mooy ñun ci liggéey la ñu nekk wante ñun aussi dañoo gëm ne nguur yàlla moo koy joxe yow li nga mën rek mooy sabablu te sabab lu bi mooy gëm ne yàlla mën na la defal ndam d'abord mhm. puisque mhm. boo ko gëmul c'est pas ngay dem mhm. ñaareel bi nga def effort yi mu laaj yëpp ba nuppi nangoo tegoo sacrifice yi mu laaj loolu boo ci nekkee bu fekkente ne nag daje na ak dogalu borom bi ak ndimbalam loolu mën na jur ndam incha allah te loolu ci lay ñaax képp ku ànd ak ñun nekk ci réew mi nga continuer ci yoon boobu voilà alors donc dina aussi parce que ce ce militant yi ñu ci bari wax nañ ma kan moy président Irissa Seck am na ñu bëri yoo sax sénégalais yi xamuñ ko ci yow euh, ak surtout ñi nga xam juddu nañu année 2000 bi xamnañu nañu tur nañ tour bi mais xamuñu ni l'homme vraiment parce que xamnañ nañ ne yow ndongo daara nga c'est-à-dire da nga jàngi alcorane nga nga nga da nga tarbiyu ba pare li nit ñi xamul mooy mooy vrai euh, euh, daara yi nga xamante ne ni boo jàngee ba pare euh, dangay dem dugg ci biir kër yi torox lu wàcce sa bopp ngir ngir ngir ngir demander lu monde comme on dit xam nga mais du comme léegi nit nit ñi di ko defee. yore pot dem yalwaani effectivement. def nga ko donc yow nekkoon nga ci. bien sûr waaw. waaw man non seulement nekkoon naa ci daara mais dama bëggoon daara ji ba nga xam ni mhm. bi sama yaay demee di rang pour wutal ma place école française di école Randoulène Sud 2 mhm. dama ko doon ñaanal mu bañ a am place ko bugguma woon a génn ci daara mhm. mais sama daara turandoo laa commencé te moom daf ñu bëggoon Mhm. donc c'est vrai que ñun taalibe yépp yi doon jàng dañ doon gàddu suñu pot bu mhm. ñu xëyee dugg ci quartier bi mhm. ñetti buntu kër ñeenti buntu kër ñu feesalal ñu pot bi ñu dellu si donc daara formation bu ama ama am solo la puisque xam-xam ñaari xeet rekk la benn bi day defar jikko di defar nan lañuy yore pénc loolu daara ji def na ci lu ama ama am solo beneen xam-xam bi mooy bii defar jumtukaay mhm. c'est-à-dire nan ngay defaree avion vélo auto et cetera ak science ak yoon mhm. mais daara ji d'abord moo jiitu ci suñu système éducatif mhm. moo ñu jural suñu kilifa diine yu mag yi ñu am mooy continuer di jur ay responsable

mu nekk lu am solo est-ce que nag li sa li tax en fait euh, sa éducation mu jógee foofu ca daara ja nga toroxlu xam luy àddina est-ce que du loolu nekkul sa force parce que euh, sa carrière politique dafa comme ni ñu waxee dafa bëri euh, ay yu ay métit métit donc c'est semé d'embûches d'embûches beaucoup d'obstacles est-ce que loolu nekkul sa force. c'est ça loolu de toutes les façons mooy base bi. Mm-hmm. puisque yalla ci boppam dafa gëreum ñi mëna a muñ mhm. té bo mënul muñ de toutes les façons muy politique muy leneen mhm. bu fekkente ne tolof tolof bu taxawé rek nga jaxlé jannaxé découragé mhm. dal da cay génn doo avancé puisque adina nonu la teudé dafa am goudi dafa am bëccëg dafa am naaj dafa am ker mhm. léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari mhm. bu fekkente ne nag bu naqaree nga daw lu neex li du la fa fekk damay joxe toujours exemple tubaab yi nga xam ni crise bu mag boobu amoon mille neuf cent vingt neuf mhm. yaakaaroon nañ ni àddina dootul jag économie dootul jag ba ñu xaru fekke ñu at yu neex ya ca tege donc muñ dafa am solo mhm. bañ na gaaw a jaaxle devant les obstacles dafa am solo mhm. loolu daara ji moom dana ko jàngale bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. alors gars yi mun ngeen poser ay questions euh, en commentaire mun ngeen poser euh, seen i questions donc président Idrissa Seck man nag li ma bëgg moom mooy ci ci parcours boobu yëpp bu métti boobu yëpp da nga ko partager avec de de de grands militants yoo xamante ne ni tey génn nañ àdduna euh, ku ci mel ni donc Aline Badara Niang ak ñoom Ndeye Amy Niang bëri nañ ñoom ñaa laa ci seppi mais bëri na ay militants yoo xam ne ni dañ dañ la gëmoon macha allah xeex ak yow nekk sa wet tey ñu génn àddina ñu déy ma ni xam naa ne sax doo bëgg wax ko mais ñu déy ma ni ñu ci bari tey seen njaboot yaa leen yor yaa leen di jàppale lépp en toute discrétion ci sutura. yàlla moo yore ñëpp. yàlla mooy jàppale ñëpp. ñun li ñu war rek. Mhm. mooy sàmm ko lëre. Mhm. ñooñu nga tudd ñëpp. ñoom Ngiraan Njaay ñoom Bàcc Gadaga et cetera bari na ay compagnon yoo xam ni fa yu si jaar boole woon nañu ñu ànd ànd bu rafet ñu nekk des compagnons d'exception pétri de valeur am jom am ngor am courage muy metti ñuy ànd muy neex ñuy ànd donc li ñuy njëkk a def mooy ñaanal leen suñu borom yokk seen leer fa ñu nekk fekk leen fa ak yërmandeem ak njéggalam xare leen yi gën a kawe mhm. te bàyyi loxoom ci seen njaboot mhm. te kattanal ñu ba ko lëre googu ñu bàyyi ci suñu loxo mhm. ñu mën ko continuer sàmm Mm-hmm. ba keroog ñu leen di fekk yal na yeex. Mm-hmm. bon man nak sama dernière question ci actualité lay doon question d'actualité actualité moom mooy suñu xale yi di di dee ci géej gi yenn euh, homme politique yi di ko politi di ko politiser cette question là en parlant voilà donc ils sont dans le populisme mooy 300 personnes yi décédées euh, pour yow lan mooy euh, vraiment solution bi pour que suñuy xale ñu bàyyi di di di di maanaam di jël gaal gi di di dee ci ci ci géej gi bu ko defee nag ma daal di jël ñeen ñaari. question yoo xamante ni nii internet ñu ngi la koy posé. jërëjëf loolu li ma ci jot a wax. mooy toutes les politiques publiques maanaam lépp lu état di yëngatu di ko def. Mhm. njeexital ba mhm. dafa war a nekk def senegal mhm. muy suuf soo xam ni nit mën na fi juddoo tedd fi di fi terale Mm-hmm. te du soxla génn du soxla jëgaani feneen mm-hmm. lu dul dem seeti àddina bi dellusi donc emploi des jeunes mm-hmm. puisque dëkk boo xam ni lépp lépp lépp lépp lañu la soxla ñoo ngi continuer di jënd mboq bitim réew di jënd ceeb bitim réew di jënd suukar bitim réew te am ay suuf yu ne gàññ am ndox am naaj am population bo xamni presque 70% témèr bo jël djuroom ñaar fukk ba amaguñu fanweeri at ak djuroom mhm. lolu mhm. vraiment lu doy war la mhm. donc li nga xamni li ci lañu wara concentré wu moy opportunité emploi yi fi nekk ñu fexé ba jeunes yi dugg ci puisque suñu jeunesse bi amna population yi buñu ñu Struktur demografik bin yo amman am jenye e piti sou nou popilasyon, nyom lolo le nou begite mounou nou kwa amtay. Mm-hmm. Donkou jenye yo yon denye lene waraway, wak mm-hmm. tay binak wese woul, lek kougouba, virgouyaram, mm-hmm. at nyang, plen di jo ham ham. puisque ñaar yooyu boo ñett yooyu boo ko boolee dinañu am kattan dinañu am xam-xam pour liggéey seen réew puisque tout est à faire au Sénégal amaguñu suñu autosuffisance alimentaire mhm. amaguñu souveraineté alimentaire amaguñu souveraineté sanitaire mhm. tout est à faire mhm. te filière yu bees yi nga xam ni feeñ na muy internet bi di numérique bi

jeunesse. Mhm. Préparer nos jeunes à mhm. affronter les défis du monde c'est c'est c'est c'est extrêmement important bon amna na euh, question yu euh donc Ben bi voilà question yu bari bu internet yi euh, li nga xamné mom moy senactu.net senactu point net bon xam nañ da nga def lu ñaan entreprise mais bon yag na Sénégal comme lu ñu wax l'adversité mais dans le respect et tout puis ñu xol l'intérêt du pays moy le Sénégal Amna na poser question Ben site internet senactu point net nañu est-ce que da nga buñ la falé président en 2024 est-ce que da nga nar les projets du président

lu ma fi fekk ci lu rafet loo xam ne lii biir na ma ne bu ñu ko defee njariñu Sénégal la dama koy wëyal mhm. loolu bu ci kenn am xel ñaar puisque bilan au président Macky Sall c'est un très bon bilan sur le plan matériel un très bon bilan sur le plan de l'équité sociale et de l'équité territoriale donc équilibre yooyu incha allah dañu koy wëyal voilà Amna aussi l'ambassadeur Omar Ouad, Wade euh, aussi mi ngi bon question c'est très très politique nee euh, gis nañ est yu Sénégal n'est ci tu jafe ci tu koom mu ci jamono yi Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade le président Macky Sall bi euh, dañ lay wo nga ñëw nga jàpp ci à quand le retour de l'ascenseur ascenseur. waaw non man bu may agir ci politique. xam nga sama parti maa ngi ko tuddee réew mi. Mm-hmm. lenn rek moo ma intéressé mooy li may def mhm. ndax dina indil njariñ Sénégal mhm. wala ndax dina fànq lor bu naroon a daal Sénégal mhm. ñaar yooyu ci lay agir ci loolu lañu ñu war a juger sama action bi nga xamee ni Covid 19 bi daanu na ci suñu kaw dafa fekk kon dialogue national am ñuy waxtaane statut chef de l'opposition xam nga foofa bokk gouvernement kenn xalaatu ko fa woon mhm. bi covid bi daanoo ci suñu kaw nag président de la république xam ne liikat lu bees la mhm. loo xam ni américains yi ña ngay dee mënuñu ci dara mhm. tubaab yi chinois àddina bi yëpp te dina egsi ci suñu kaw ndax du jar ñu boole suñuy doole gàttandu loolu ba lor <clears throat> yi mu mën a jural Sénégal wàññeeku buñ mënta fanq lépp itam au lieu ñu continuer di tojante ay bop opposition pouvoir mm-hmm. lolu ci la ko tontu mm-hmm. to neko mm-hmm. ndox muy fay lak kenn du fa tok diko seg da ngay fay lak gi ba paré motax biñu fayé lak gi ba paré nak dëgmal élection yi ma génnaat xaaruma fa poste sees bàyyi nañ fa poste ministre yi nañ fa privilège yi génn di mm-hmm. aj baatu askan wi donc loolu mooy wane ni li ñu fa yóbbu woon moo mm-hmm. doon sauver Sénégal ci mm-hmm. crise bu graw te mag te dal ci àddina bi yépp mais voilà donc Mangi ngi demandé de dëgg euh, ba jaxate ba mu mënoon poser waatal sa question parce que euh, euh, commentaire de bari trop question yu bari na trop trop trop voilà dina baax trop ci mana ah, baatu deug ma ngi koy ñaan donc monsieur sec Pape Moussa Sow di également un journaliste aussi nek aussi chroniqueur fële ca Walfadjri spécialisé sur les droit et donc mu ngi rafetlu émission bi aussi di la demander néna lui l'auteur de la synthèse de l'écoute des Sénégalais A-t-il compris euh, le message des Sénégalais avec le coup spectaculaire du bilan immatériel de la non-candidature du président Macky Sall donc voilà, le candidat Idrissa Seck reconnaît le caractère positif du bilan du président sortant. Lui, l'auteur de la synthèse de l'écoute des Sénégalais, a-t-il compris le message des Sénégalais avec le voilà la non-candidature du président Oui, Euh, defe naa ni euh, non candidature bi nga xam ni président de la république décidé na ko mhm. li mu njëkk a def mooy dafa yëkkatiwaat Sénégal mhm. yëkkatiwaat démocratie Sénégal mhm. ba acteur yu bari ci àddina bi ay njiitu réew fii ci Afrique ak ci addina bi di wax ne dëgg dëgg Sénégal mooy porte flambeau démocratie ci Afrique loolu nag jural na Sénégal njariñ bu réeréeréeréy rëy mhm. te ñun ñoo ko war a sàmm mhm. en réconciliant les cœurs mhm. en pacifiant l'espace politique mais président de la République li ko waroon ci côté boobu def na ko matal na ko sëkk d'ailleurs loolu yëkkati na ko moom ci boppam ci station boo xam ni moo gën a kawe bi mhm. muy waaj a bàyyi di président de la république parce que aujourd'hui fu mu taxaw ci mhm. àddina bi mhm. dinañu ko respecter dinañu ko jox cër buntu bu mu fëgg yàlla mën a def mu ubbeeku donc tey la gën a mën a jariñ Sénégal tey la gën a mën a liggéeyal Sénégal que bi mu nekkee président de la république voilà nee aussi euh, euh, lan nga ce euh, ci sa programme par rapport à cette élection présidentielle 2024 lan nga fas def pour diaspora bi nga xamante ni apport bu am solo bu ñuy def pour Sénégal. waaw lolu ñoo ngi ci waxtaan ak wa diaspora bi ci sen bop parce mm-hmm. que approche bi ñu def. moy mm-hmm. dañu taxawal ben comité de rédaction de programme. Bo mm-hmm. xamni xalaat yi ñu am yépp. balaa ñu koy siiwal di mm-hmm. génne suñu programme mm-hmm. dañu ciy waxtaan ak ñi mu concerné mm-hmm. parce que ku ci nekk moo gën a xam boppam moo gën xam ay soxla boppam waa diaspora bi daal xam naa ni bokk na ci tomb yi nga xam ni yu leen ñor la mooy bu ñu nekkee bitim réew liggéey fa seen diiru liggéey ba toll ci retraite des fois dañuy obligé toog foofa pour mën a toucher seeni allocation sociale ak yooyu loolu laaj na état bi wax pays partenaires yi mhm. pour que ñu mën a ñëw fii Sénégal di ko fi am mhm. ñibbi si Sénégal bañ doon lu leen di xañ seen droit ak seeni àq mhm. ya ñu dajale pendant bi ñu nekkee xam naa ni itam problème consulaire yi maanaam lépp lu aju ci kayit yi passeport yi yombal ko surtout fi nga xam ni fii amuñu fa ay ambassade wala ay dëkk yoo xam ni benn ambassade dafa dajale ñaar ba ñett ba ñeenti dëkk lépp luy yombal këyit yooyu ñoo ngi ci incha allah di ci waxtaan ak euh, les associations de sénégalais yi nekk ci diaspora naturellement suñu mbokk yi fa nekk aussi nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay tolof-tolof moo xam ci wàllu yoon wala leneen appui consulaire bi ci war wala ñiy génn àddina di am ay difficultés pour le rapatriement des corps ak yooyu yëpp bokk na ci tomb yi nga xam ni ñoo ngi ciy liggéey voilà donc Amna aussi euh, ki nga aussi ci domaine bobu mom lay di Abdoulatif euh, le candidat a-t-il le candidat a-t-il mesuré les enjeux drainés euh, par l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz surtout avec la fermeté que le pays doit avoir pour maîtriser l'insécurité qui a brûlé beaucoup de pays voilà madame, est-ce que mesurer nga enjeu parce que xam nañ Sénégal am pétrole ak gaz fu pétrole ak gaz am ci euh, aduna bi euh, ciow li day bari de retour euh, est-ce que mesurer nga enjeu yi il le dit Abdou Kane il le dit par rapport que l'opposition radicale bi nga xamante ne ñu ngi leen di y a des lobbies derrière des multinationales pour que voilà ñu mun a de waaw maa ngi sant Abdou kan bu baax ci question boobu parce que question bu ama ama am solo la ci njalbeenu émission bi dama leen a wax ni jàmm moo jiitu mhm. jàmm dafa laaj kaaraange président de la république def na ci ay jéego yu ama ama am solo mhm. mais dañoo nekk ci sous région boo xam ni du rek li ñu am pétrole ak gaz mhm. mais am na yeneen yu tax ay nit jóg bëgg néewal doole réew mi bëgg fi indi instabilité bëgg fi indi kaw mhm. loolu lépp lu mu laaj mhm. pour loolu bañ a am mhm. pour seen pexe yooyu bañ a antu ci wàllu kaaraange ci wàllu dooleel suñu force de défense et de sécurité yi non seulement dinañu ko wéyal mais dinañu ko renforcer parce que li jiitu ci responsabilité président de la république moi garantir la souveraineté nationale mhm. garantir la sécurité de nos frontières mhm. et garantir la paix et la stabilité à l'intérieur mhm. donc enjeu il faut mesurer pétrole bi gaz bi li nga la wara gens. yombal compétitivité économie Sénégal parce mm-hmm. que lu waay di liggéey mm-hmm. lu ci bari dana soxla énergie mm-hmm. maanaam électricité wala carburant moo xam nga yore transport moo xam nga nekk tailleur di ñaw ak sa machine électrique moo xam nga nekk euh, menuisier métallique di soudé ak électricité moo xam nga nekk baykat Mm-hmm. yore ay pompe war a mm-hmm. indi ndox et cetera et cetera donc mm-hmm. lu ci bari fi ñu koy orienté mooy lan mooy wàññi wàññi gu ama am solo njëgu électricité bi ak njëgu énergie bi ba nga xam ni suñu économie dana gën a compétitif dana gën a yaatu ndaw ñi mën ci am ay xëy Voilà, donc euh, euh de voilà. Donc mon autre question concerne la crise euh, au Sénégal. Donc question ba Demna. Des fois, dafa am vraiment nous xamante ne nii euh, dañuy liggéey ak président Macky Sall euh, ci réseaux sociaux. mon autre question de concerne la crise du voilà donc voilà du on va dire du Sahel avec la ceinture de feu. Euh, euh, le PAJC euh, contrôle actuellement l'Assemblée de la Guinée. La Guinée-Conakry dominée par la junte, le Mali pareil. Euh, donc voilà, donc en fait côté géopolitique bi, l'a demandé. également, nous partageons avec la Mauritanie les hydrocarbures. Quelles sont les stratégies déployées dans son programme pour maintenir l'exception euh, qui constitue le Sénégal dans le Sahel. Toujours question géopolitique, madame. Position au Sénégal que manam ouest africain, euh, jafé jafé yi tout à fait Sénégal dafa nekk ci position boo xam ni. c'est une puissance sous-régionale. li ñu war. mooy lépp lu ñu man ba fexe dëkk yooyu dellu ci jàmm dellu ci dal dellu ci stabilité dellu ci démocratie loolu moo war a nekk politique u Sénégal suñu politique étrangère damay wax toujours nit li ci jiitu nga xam ni moo ci ëpp ëpp ëpp solo mm-hmm. mooy ambassadeur yi gën a am solo ci suñu diplomatie mm-hmm. mooy réew yi ñu dendal mm-hmm. Gambie Guinée Bissau Mauritanie Mali et cetera bon voisinage nga xam ni dañuy séq ak ñoom jàmm bu fekkente ne tàkk-tàkk am na fa ñun suñu responsabilité mooy dimb leen dimbali leen pour ñu fay tak tak bobu mhm. bañ a indi ay jafe jafe puisque mhm. yoyu buñ ko fayul mën na law ba ba laal suñu réew donc loolu mhm. euh, lu ama am solo la ci stratégie euh, diplomatie sénégal voilà ab ah, may sama dernière question Lal Badji euh, di nuyu baatu deug bu vraiment euh, Lal Lalia euh, Badji de ko nuyu bon aussi réumiste la néna qu'avez-vous prévu pour la formation professionnelle d'autant plus que beaucoup de jeunes n'ont pas de métier pour aspirer à un emploi décent lan nga prévoir yo monsieur monsieur Seck pour formation presse professionnelle au Sénégal et dernière question ma salé ko ci té 30 minutes nga ñu Nibisi. opération ñibisi

lépp lu nit ki bëgg a def rawatina formation professionnelle filière yi nga xam ni moom lañu yàlla baaxee mhm. muy filière agricole muy filière artisanat muy filière pêche muy filière élevage ak yu ci bari prévoir nañ ci ay programme formation professionnelle yoo xam ni tey ànd ak liggéey mhm. loolu la anglais di wax on the job training mhm. maanaam nga nekk ci liggéey bi boire formation bu dee formation mbay ngay def mm. ñu jàngale la ko ca tool ba bu dee mm. formation napp ngay def ñu jàngale la ko ca gaal ga mm-hmm. bu dee formation atelier ngay def ñu jàngale la ko ca atelier ba mm. donc formation professionnelle gën jege bërëbu liggéeyukaay yi mm-hmm. pour que bërëbu liggéeyukaay yi ci seen bopp nekk ay école de formation professionnelle mm-hmm. donc mu nekk lu am solo ñibbisi bi mooy yaatal rek puisque mm. fii ñu jóge ak fii jëm ci fi situation Sénégal tollu mm-hmm. boo bëggé diriger mm-hmm. il faut nga bolé ci ñëpp mëna wax ak ñëpp mm-hmm. rassembler élargir réconcilier parce que faut foofu la tolluwaayu àddina bi nekk mhm. foofu la tolluwaayu réew mi nekk mhm. loolu moo tax ma ne leen nag nañ ko def par cercle concentrique mhm. ñi nga xam ni yàlla boole woon nañu ca njëlbeen depuis M6 ñuy ànd dem ba ci diggu yoon bi euh, am séparation ñooñu lañu wax lépp lu ñu mën ci indiwaat leen ñu ànd andoowaat continuer liggéey bi nañu ko def ñëpp ñi nga xam ni ñii aussi xam nañu ne bëgg nañu Sénégal xam nañ ne bëgg nañu jàmm Sénégal xam nañ ne bëgg nañu respect république ak institution yi xam nañ ne bëgg nañu progrès Sénégal ñu tamit ñu tàllal leen loxo même ñi nga xam ni jàpp nañ ne yoon bi ñu jaar di yoonu violence wala yoonu toj ak yàq et cetera baaxul dañu war a continuer di waxtaan ak ñoom pour ñoom tamit ñu gindiku xam ne yoon boobu du intérêt Sénégal mhm. yoon boobu jëmul fu baax mhm. réew yi ko def yépp regretté nañ ko donc Sénégal jarul mu jéem a soobu ci yoon bu mel noonu donc daal waxtaan ak ñëpp loolu mooy concept yu ñibbisi mais mais ma rek bala ñu lay ñu lay réclamer Badara Je ñëwaat parti mi euh, man ma ma ci ndax na ci opération bi. <laughs> absolument ah. Badara c'est mon fils. Uh-huh. lui il sait très bien uh-huh. que uh-huh. mais je suis persuadé que mais pour qu'ensemble nous construisions un meilleur Sénégal pour qu'ensemble nous fassions du Sénégal une terre d'opportunités et d'avenir mhm. pour les générations des mhm. futurs. Machallah. Mhm. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, monsieur Sec. Euh, donc, merci, beaucoup. Et tous mes encouragements pour l'excellent travail que vous faites Mm-hmm. Dans le cadre du renforcement de la démocratie du Sénégal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci. donc le chef de l'opposition qui m'a dit, qui m'a dit euh, pourquoi pas le, prochain président du Sénégal. Donc rendez-vous 2024, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> Voilà, donc c'était le président Idrissa Seck, donc euh, euh, leader de Réumi, ancien premier ministre du Sénégal, euh, le directeur cabinet président Abdoulaye Wade, euh, donc également Nek tout donc Réumi, un homme de paix, vraiment Du coup, nous, du coup, Du coup, remercier encore une fois vraiment ci OFM disponibilité gisna commentaire rafet ngi son parcours donc un homme donc d'expérience un homme d'état un homme d'état c'est vraiment un homme d'état donc ba sa message Manque ko dooru gis euh, voilà euh, donc en fait Mingi ngi nous respectons le président euh, du parti Réumi Idrissa Seck encourageons ses militants à œuvrer dans le sens de la démocratie et du respect de l'état de droit comme ils sont en train de le faire cela vient à son heure fraternellement le coordonnateur national des activistes républicains kon ba remercier donc le président euh, donc Idrissa Seck nee na mi ngi encouragé euh, euh, militants ñuy œuvrer dans le sens de la démocratie ak respect wu état donc euh, ma remercier bu baax a baax mom mi di ba jaxaté et ça ne me ça ne me ça ne me surprend pas venant de toi donc c'est bon voilà alors donc gars yi nu ñuy def luddul dul jël nag ki nga xamné mom moy ben journaliste bi nga xamné mom lañu la El Modou Gueye mu faram fàcce Seydina Seck Sénégal Actu mang lay nuyu bu baax a baax légui légui rek Ming ma yónnee aussi benn des question 5-5 euh, ci walu gaay wara ñu jël euh, Tra également ñu décortiquer donc le live bon mango et mot El Modou waaw maa lay fay soxna Mati nga def. voilà kontaan bu baax barre barre pour ces retrouvailles là ça fait des années et des années que nous déggante depuis euh, Walfadjri donc maa le lay nuyu Nous euh, ñu live en quelques minutes rek en cinq minutes euh, lan nga mun a maanaam jàngat ci waxtaanu tey bi interview bi mais avant cela en en quelques mots pourquoi yow nga nga nga poser la question. à ce que président Idrissa Seck lu tax mu le candidat du parti du régime présidentiel APR. voilà <clears throat> voilà merci Mati maa ngi lay maa ngi de nuyu bu baax di nuyu internet yi nga ne mm-hmm. ñoo lay suivre dimanche bu jot man ma bokk ci. Mm-hmm. maa nuyu également le président Idrissa Seck bi génn parce que mm-hmm. moom. c'est un grand frère euh, de ab cekkeel la boo xam ne heure bu ñëwee Touba parfois dama koy tooñ di kalanteeg moom. di nuyu également les responsables de son parti notamment Yankhoba Diattara qui est également un frère et un ami li nga li ma wax euh, semaine bële def naa maa ngi ko wax semaine bële il y a une semaine de cela mhm. ci benn benn benn chronique bi ñuy def fii au niveau de de Touba chronique hebdomadaire mhm. ci jàngat bon mhm. li ma waxoon dafa li li li ma gis tey jii nii sax daf ko confirmer parce que boobu dama ne bon euh, tey jii nii li nga xam ne moom mooy réewum Sénégal dafa nekk à la croisée des chemins dañu jëm ci ay yoo xam ne ay élection yu crucial la mhm. yoo xam ne dafa nécessité mhm. ñu réfléchir bu baax xool ñi nga xam ne ñoom la ñuy teg ci bopp réew mhm. parce que pour une première fois dañuy fal un président mais duñ fal yi dëgg la nit ñi dañ doon mer mere benn président daal di lëkkaloo daaneel ko buñ ko daanelee ba pare nag soog a xool maintenant lan la ñuy def bon léegi nag ma ne bon étant donné que réew mi toll na fi mu toll ak Sénégal li mu traversé yëpp. Mhm. dafa laaj ñu jël ay nit yoo xam ne. Mhm. am nañ d' parce que réew du caaxaan euh, Mati. Mhm. pour nga jiite ko il faut d' abord nga am un parcours. il faut nga background. mënu ko jóge rek du ciel comme ça ñëw nekk benn homme providentiel boo xam ne jaaro fenn. ñëw ne damay jiite Sénégal. loolu yi ko dëkk yi ko def yëpp nga xam ne ci ay populisme lañ basé wu pour def ko mhm. après dañu am problème immédiatement président ba soit dafa démissionné mhm. wala population bu jële ko fa yow xam nga li ma lay wax parce que boo xoolee dëkk yi faloon ay populiste ak ay extrême droite yëpp mhm. président ma presque benn mandat la def ñenn ñi sax àgga am na sax foofu ci Europe googu léegi nag pour éviter cela il faut quand même des hommes yoo xam ne am na fu ñu am expérience tàggat ah, am nañ expérience tàggat nañ leen ci wàllu politique. Mhm. li tax ma waxoon loolu nag dama ne bon président Macky Sall background background ground am ak fi mu jaar moom loolu moom rek la ko yàlla may presque kenn amu ko. Mhm. mais bu bu weesoo moom nag. Mhm. keneen ku ngay gis mu mu jege ko wala mu tolloo moom mooy Idrissa Seck. dëgg la ku mel noonu. ñu demati di considérer ay mbiru parti. Mhm. man loolu laa waxoon ci kii ma ne bu ñu waxati ay mbiru parti mbiru coalition mbiru Sénégal la. Mhm. y a une grande majorité présidentielle bu fi nekk. Mhm. parce que moom génne na waaye waaye ci grande majorité boobu ci la bokk ndax ay député mag ay kéem ñi ngi foofu. donc kon nga choisir ci grande majorité au delà de Benno parce que maître Ousmane Ngom wax na ko barki démb. boo suivre benn interview boo xam n def na ko Dakar ak dafa ne Macky Sall devrait aller. au de Benno Bokk Mhm. avoir un candidat vraiment bi nga xamné mom mhm. moy nek candidat de de de de consensus mhm. boo xamné il sera même capable de gagner dès le premier tour te loolu moo taxoon mo wax ma andi l'exemple de Idriss Seck wax fi mu jaar def def ñaar def ñaar ba ñetti élection ñaar yépp mu arrivé deuxième benn bi mooy bi mu toogee place de l'indépendance. Euh, demul campagne mu mu mu boobu rek la ñuul deuxième dëgg la te bo boo boole koor yi mu am yépp benn bi am na vingt pour cent benn bi am na quinze pour cent benn bi am na sept pour cent. Mhm. loolu boo ko xoolee parce que 46 pour cent de sénégalais la yoo xam ne mhm. diggante deux ak yow ak léegi ñi ngi am confiance ci yow loolu loo ci yokk da ngay jàll premier tour. dëgg la donc et puis et puis. au pire mhm. des cas. li ma dégg tey mu wax. nga xam ne li ci jiitu mooy jàmm. parce que c'est extrêmement important on ne peut pas bâtir un pays mhm. dans la guerre mhm. euh, dans les invectives mhm. xam nga dans la médisance nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi maanaam di di di tibbante tànk mënoo ci tabax am rek donc kooku bo jàmm jooju mu wax plus euh, dajalewaat ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi autour de l'essentiel mais lu fa nekk loo xam ne boo ci ab discours kooka lu mu gàtt gàtt. Mhm. dina am benn yaakaar boo xam ne dina ko dina ko juraat ci ci ci ci ci ci Sénégalais yi. loolu nag moo loolu non seulement moo taxoon moo wax la mhm. mais bi ma dégluwaatee discours bi parce que discours bi quand même mati. Mhm. man man jàpp naa ci ay ay ay points yu bëri yoo xam ne c'est extrêmement important nit ñi di ci bàyyi xel. parce que pour la première fois ma dégg. kuy dem élection présidentielle ne. damay dem ci askan bi laaj leen lan lañ soxla pour ma. tëggee loolu moo programme. Mhm. xam nga nit ki daan gis gars yi dañuy dañuy da ngay jékki-jékki nga gis ku bind livre wala ku dem gis ay tubaab wala ki ñu tëggal na programme. Mhm. nga andi ko jox ko population bi parfois du dëppoo ñoom. Mhm. ak seen bëgg-bëgg. mais bu fekkente ne ni yow da nga def ay discussion discussion yoo xam ne yëpp c'est c'est c'est vraiment inclusive nga nga dem ci nit ñi. dellu ci ñoom surtout diaspora bi ne leen yéen waa diaspora bi la. lan mooy réellement seen problème parce que diaspora bi euh, da ngay gis ne que ñoom euh, ñaxtu yi bëri na foofu trop. trop mhm. lan mooy seen problème lan ngeen yaakaar ne war na mën a nekk. Mhm. loo xam ne yéen mooy régler seen problème bu yépp réglé wu. te mhm. jël ko dëxëñ ko ci sa programme lool c'est extrêmement important moom moo tax bi ma ko déggee fii. dama ko dama ko dama ko rafetlu. mais leneen li nga xam ne. moom moom gën a nag surtout ñor ci dans tout ça. mooy l'aspect sécuritaire. sécurité dafa nekk lu lu lu lu lu am solo. Mhm. te sécurité mënul am té jamm amul. Mhm. mais yooyu su amé nak mati. Mhm. ah il faut que nag état aussi taxaw. té amna na fu mu dégg euh, am fu je pense que noté nako pour fu muy wax respect de l'état et des institutions. parce que loolu bu amul. Euh, bu amé du jar yow ngay imposer l'autorité de l'état loolu nag yaa ngi koy am ci waxtaan mm-hmm. ak diisoo mm-hmm. ak formation mm-hmm. ak ak ak civisme lu am solo bu amee rek waaw bu bu amee rek du jar Mm-hmm. ngay utiliser doole pour restaurer l' de l' état parce que mm-hmm. autorité de l' état dañ ko xaw a perdre ci ci ci ci année yi ñu weesu ah, maa ngi fàttaliku mos naa ko interroger moom fii Touba ma ne ko mm-hmm. sa premier chantier c' était en deux mille dix neuf ma ne ko sa premier chantier boo jëloon réew mi lan lay doon mu ne ma sama premier chantier bokk na ci la restauration de l' de l' ak rendre justice bi Eh, population yi am confiance ci mom loolu maa maa nekk na lu am solo ñu bàyyi la nga daaneel fofu parce que dañu wara a jël euh, euh, Tra nga xam nga wara ci diaspora bi la bokk justement té c'est très très très important mhm. Mhm. voilà fi may daaneel foofu daal mooy mhm. euh, jàpp ne loolu mo xoon kon déjà yow dégg nga ko mais lima ci lima ci ci moins que euh, peut-être lancer un appel mm-hmm. parce que Sénégal dañu nekk comme on naa ko à la croisée des chemins mm-hmm. nit ñi mm-hmm. bu ñu ci élection présidentielle bi ñu jëm nii waruñu de di bënaat suñuy bëtti jooy ci peut-être ay erreur de choix yu ñu def wala euh, top, peut-être xam nga de ci les li xam li xew moo ko gën loolu Olof Njaay wax ñu fexe ba vraiment am te Euh, un candidat de de de haute facture. Mhm. de la trempe de Idrissa Seck. ak mhm. ñeneen ñu mel ni moom. nga xam ni bu ñu jotee ci réew mi. Mhm. bu ñu ko téyee danañu ko mën a liggéey. ci benn temps record boo xam ne li ñu fi fekk muy pétrole bi. parce que enjeu la aussi dégg naa mu wax ci. muy pétrole bi dinañ ko mën a def mu nekk opportunité parce que loolu laa dégg mu wax. pour une compétitivité économique de l' économie sénégalaise. loolu c' est extrêmement important xam naa laa ci yem rek. peut-être Euh, amaat occasion duggaat ci sa live euh, maa ngi lay sant bu baax nag di la remercier uh-huh. ci tànn bi nga ma tànn pour vraiment ma def euh, décryptage li nga xam ne moom mooy discours président parce que yombul nag quand yombul mais am nañ ci am nañ yaakaar ne daal uh-huh. lii ñu dégg uh-huh. su concrétiser ko sur le terrain ça pourrait profiter au Sénégal merci beaucoup en tout cas quant à trop El Modou dinañ euh, yow merci beaucoup te vraiment ravi de cet échange man ak yow et les retrouvailles merci beaucoup El Modou. merci voilà donc je le Traoré euh, rapidement et encore une fois ñëpp ñu ngi rafetlu euh, li Bah Diakhaté wax les gens ils appellent comme pas possible may leen ma jël donc Tra donc Traoré gars yi ngi woté comme pas possible c'est c'est un truc de fou euh amna kuy woté ni dafa melni voilà gars yi may leen ma ma jël Traoré bu réew mi donc voilà nous ma beaucoup bëggoon euh, Ousmane Sonko mais dañ va bàyyi ba dimanche prochain Belle révélation revoir. Euh, Traoré heureux. ngi en deux minutes rek lan nga ci mën parce que vraiment ce président wax na machallah. Masha'Allah. machallah. Masha'Allah. merci beaucoup Mati. Mm-hmm et comme d'habitude donc fierté honneur mm-hmm. de participer si c'est euh, live Merci. beaucoup et comme nous nga mm-hmm. malheureusement, nous malheureusement décortiqué décortiquer mm-hmm. euh, discours président Idrissa Seck si deux minutes mais on va essayer très rapidement donc déjà heureusement que El Modou l'essentiel l'essentiel donc je euh, juste si deux trois points premier point le plus important l'aspect de la, la paix. Mm -hmm. Et il a insisté sur mm-hmm. la paix. Mm-hmm. ndaxte il a raison. Mm-hmm. donc franchement sous amul paix. munul am dara. faut fa tabax faut fa construire. mënuñu fa jàng mënuñu fay mënuñu def dara. y a rien rien à faire donc c'est le premier point. vous gisee ces cinq cinq dernières années Sénégal lu subir. franchement. Euh, dañoo war a jàll si beneen étape si beneen cap. donc un homme d'État qui est donc un homme d'État réfléchi mm-hmm. un homme d'État de paix nous sommes là pour nous euh, fédérer mm-hmm. généraliser donc les plus nga à maintenir am nañ ko euh, ressources et ainsi de suite pour mm-hmm. nous gérer comme il se doit c'était juste une petite parenthèse ma c'est le deuxième point Nous avons aussi la diaspora xam nga damay confirmer juste hier on a eu une réunion pour deux heures de temps pour le président Idrissa Seck di wax. Mhm. en deux mille dix huit. Mhm. Euh, dafa jaaroon Maroc. Mhm. dañ ko ko exposé woon lii mu wax nii léegi léegi nii. à savoir quoi. ñun ay anciens lañu à l'étranger su ma nee à l'étranger mooy en dehors du Sénégal. ñoo ngi liggéey. léegi suñu retraite yooyu noonu yëpp qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va en faire. est-ce qu'on va continuer à rester à l'étranger. wala dañoo war ñibbi Sénégal. mais on sait que l'eau est coopération euh, bilatérale la entre état et état. Mhm. et on a besoin donc de quelqu'un qui a un intérêt, xam état. Mhm. pour mun dem négocier l'eau à travers Yenen état yi. Mhm. pour di retraite du Sénégal. c'est quelque chose de très important pour nous. donc les expatriés. solo donc point bi. voilà donc on l'a entendu wax si suñu malheureusement su suñuy euh, doom di de di des gaal dama man je suis au Maroc. Mhm. Maroc en la. Mhm. Euh, heureusement ou malheureusement ça mhm. dépend. je suis témoin je naa lu réellement. Les ban politiques, les ñu de telle sorte comme le président Idrissa de à l'intérieur du Sénégal. Ce doom ñu bañ bi c'est juste pour aller visiter d'autres pays on sur l'agriculture mm-hmm. donc c'est un levier bu ça mm-hmm. va retenir la population sénégalaise là-bas les jeunes mm-hmm. et pour te dire voilà ben programme c'est au cœur de la jeunesse bu nga xamante mettre en place donc là, c'était juste pour résumer un tout petit peu. On n'avait que deux minutes. Voilà. Mais, mais tu es un bon communicant. <laughs> <laughs> Merci beaucoup. c'est normal. Merci. Je t'en prie, En tout cas, merci. d'y euh, et en tout de la féliciter yow si excellent travail bu ngay def ak euh, les activistes donc républicains mhm. ba jaxate lu wax tamit amna solo mon tamit diko féliciter diko remercier ak ñoom baax yaay ñoom ñep merci beaucoup merci beaucoup gis nga li mo li dafa rafet kon ma ngi remercier euh, Émile Ndiaye waron na ko jël euh, mais xamna dina la wo bu ci kaname légui di nga comprendre di len remercier yeen ñep activistes républicains yi ba jaxate tay li nga def ça me ça me touche beaucoup ça me fait trop plaisir et ça ne me surprend pas de toi di remercier donc ñoom baax yaay Euh, ñoom Anita Diop tous les activistes républicains ku lim juum euh, mun nañ nekk ay adversaires mais pas euh, des des des des des ennemis voilà lolu Sénégal mo sa xam buma ko waxé euh, parti réew mi ak it ñu mel ñom Tra ñom Babacar Mar ak it également ñom ba Diakhaté batu deug donc li mom moy Sénégal li lañu xam di remercier encore une fois aussi euh, euh, ki nga xamanteni mom moy mooy Seydina Seck journaliste Sénégal Actu de remercier aussi Pape Moussa Sow aussi nek chroniqueur également di journaliste aussi di juriste également de remercier ñom Émile Ndiaye aussi nek fi ci Europe bi ci euh, italibi bi dinañu waxtaan di remercier ñëpp dal vraiment Koulim djum euh, remercier toute l'équipe euh, de communication bu rewmi ñom qui n'ont ménagé aucun effort le secrétaire national chargé des relations avec la presse di remercier Babacar Mar tout le temps mi ci live de di force di ma yokk live bi pour vous dire dañ doon waxtaan ni rek parce que yuguma wona présent. Il sax président Idrissa Seck dafa def émission ak le Diallo la borom leexu yi Walfadjri yëguma ko woon ñu waxtaan nii rek euh, euh ne momay mooy pourquoi pas sax ñu def émission ak ak ak monsieur Seck et comme ça que que que mbir mi non la non la mbir mi euh, euh, taxawé donc Babacar ma merci énormément toute l'équipe digitale de Rewmi merci beaucoup à tous gars yi inshallah dinañ koy faral di def ubbi nañ suñu buntu kep ko xamante ni candidat candidat nga pour l'élection présidentielle 2024 inshallah inshallah rabbi comme ni ñu ko défé en 2019 jàmm ak jàmm euh amna révélation dina ci ñew inshallah euh, lundi le mardi euh, par rapport à Akite Bébé Ousmane Sonko niveau bi dafa ba nga du ak merci à tous Adiza contana bu merci énormément euh, donc à monsieur Idrissa Seck le président Idrissa Seck donc de Réumi. merci à tous bye bye.